Sénégo TV ñu ngi am mbégte kontante bu baax di leen euh, présenter suñu interview bi ñu am tey comme euh, gan nag ay euh, ndaanaan ci rap galsen donc kenn dootu leen présenter muy le groupe Akhlou donc li ñuy def rek mooy dañ leen di bàyyi ñu def seen présentation avant ñuy dugg ci émission bi. asalaamaaleykum ah, Sénégal aral an des ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa Sénégal yëpp yi ñuy seetaan kontaan jaajëf. yo salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Sénégal uh, that's the same I hope n'est-ce pas <laughs> ñu ngi leen di béggee yéen ñëpp cat ba cat c'est Deise Kala from Akhlou Brick yëpp. voilà merci beaucoup ci euh, présentation boobu donc euh, suñu euh, première question bi mooy gis nañ ne seen endurance ci game bi ni ngeen ci taxawee depuis bi ngeen génnee seen son ñu la booyukan ba ñafal bi ngeen génne il y une semaine. ba tey yéen ngeen ni euh, donc euh, porte combat bi euh, seen persévérance bi donc wàccoo leen baar bi ba tey lan moo waral endurance boobu. yeah c'est une très pertinente question bon endurance bi nekkul leen lu dul liggéey la quoi parce que musique lañ nekk il foo être productif dafay mel ni comme Sénégal rek chaque jour dafa war a génne interview chaque jour dafa war a dem pour interroger nit yi. chaque jour dafa war a am contenu pour jox ko askan bi donc tamit Akhlou Brick kazalika chaque jour dafa war a dem di liggéey pour que à tout moment muy nekk muy nekk ci ci ci ànd ak temps bi mu ànd ak jamono bu ko defee chaque jour dina mën a update boppam jaamu yàlla yi di ci mën a di ci mën a di ci mën a gis seen bopp liggéey liggéey nag loolu moo koy moo koy moo koy def looloo tax à tout moment ñoo ngi ci waar bi euh, di def suñuy affaires yoo xam te dañ naan chaque année euh, ñun dinañ bokk ci ñuy ëpp ñi ñi li li ñuy produire en fait. Hmm. loolu ci production boobu xam nañ ne production aussi xaalis lay euh, laaj. donc euh, source bi fan lay jugee est-ce que dafa am ñi nga xam ne ay bailleurs wala genre quelque chose comme ça ñi nekk ci ginnaaw le groupe Akhlou Brick di leen di financer. Oh, non je dirais pas mais juste que euh, damay wax rek ni nit ku nekk rek à travers sa liggéey si ngay fayeeku soo ko bëggee jëriñu soo si bëggee jariñu li nga li ngay fayeeku si ngay liggéey et aussi quant à tam ñoo ngi sant yàlla. ñoo ngi sant yàlla bu baax suñ ñëwee tam day gën a neex rek loolu moom. <laughs> amul awul awul benn muskil la non Akhlou Brick bon je peux dire que yàgg na liggéey liggéey boo xamante ni à travers te ay entreprise dañuy ñëw. di di contribuer ci li nga xamante ni mooy dil bi étant des sponsors wala ay affaire yoo xamante ni nii mooy loolu lu ci mel ne tey par exemple on a bossé avec Nescafé yàgg na te boobu ba tey ñu ngi ñu ngi koy maintenir on a bossé aussi avec 1xBet et tout ñoo xamante ni tamit dañuy ñëw ci sa produit bi pour ngay di la gën a booster ngay liggéey ak ñoom entre produit et produit donc je crois que avec ces ces ces ces maigres moyens ci Akhlou Brick ñu ngi débrouiller ñu ngi sant yàlla di ci di ci gën a di ci gën a di ci gën a bossaling c'est ça euh, ñu gis ne euh, andi ngeen benn tous ci Rap Galsen donc euh, mu gis mooy l'instrument tajabit donc voilà euh, ñëpp di si coow lan moo leen inspiré déjà euh, ci instrument boobu. Euh, bon tajabit parce que la ñu moom la ñun ñoo ko moom déjà instrumental bi dañ ko fi fekk parce que dañ fi fekk rythme taajaboon ngay séeréer ngay pël joola koo mën a doon Sénégal. bu taaja bit musaana jot jóg nga nga fecc ko jóg nga nga way ko jóg nga nga tëgg ko te ngay mag ngay xale koo joxoon tey ne ko tëggal ma rythme taaja boon mu tëggal la ko ak koo mën a doon mu saas muy loo mën a doon buñ la waxoon tëggal rythme taaja boon mën nga ko def parce que dafa bokk suñu culture donc nit nag booy demee ba nga xam ne yaa ngi def musique euh, à chaque fois ngay àbb benn yëfi jàmbur maintenant war na jot na nga ni xaaral ma jël sama yëfi bopp te foofu la àdduna toll àdduna toll na fi nit ñi di xoolee seen dëkk lan la mën ñu bàyyi fa lekk fa lan la mën ñu def ci dara lan la mën économiquement et tout donc si musique aussi ñu dañu gis ni bari na lu ñuy àbb ji feneen di ko def bu benn bit xewee Amérique ñun dañuy ñëw defaat même bi bu benn bit xewee Nigéria ñun dañuy ñëw def même bit bi malgré que nag euh, mondialisation may na ouverture yooyu ba nga xamante ni léegi lu xew fu ne ñëpp mën nañ ko def ñu nit bëgg nañ dara jóge ci Sénégal dem ñu koy defi feneen mhm. te bit bi denk na bit boo xamante ni déjà am na rythme taay taaja boon mais am na quatre temps aussi am na ay kick am na tout ce qu'il faut pour yeneen dëkk yi commencé ko jël tey ñu ngi gis retombées yi par rapport ak yi nekk ci àdduna bi yenn euh, collab yi ñu ci am yenn nit yi nga xamante ni ñëw nañ découvrir ce qui est le taaj ñu def ci benn documentaire sur YouTube pour expliquer la taaj beat donc j'espère bien que ni c'est pour la génération future ñun def nañ ko nii premier pas dinañ ci gën a xuus mais àdduna mën na dox ba ñeneen ñëw gis ni lii nii kat pourtant c'est à exploiter donc euh, on dañuy neex sax ñuy poser genre question yu mel ni comme ci taille de parce que déjà le fait de créer quelque chose boo xamante ni euh, c'est pas évident joxuñu ko képp ñëpp mënuñ ko donc euh, yàlla def na mu jaare si ñun mais nekkul lu ñu moom moomee lu ñun ñëpp bokk la na ko sénégalais jàppee noonu beatmaker yi aussi dem découvrir ko comprendre tempo yi comprendre jab bi nu muy demee et que la preuve boo gisee néegu góor gis ak fi réew mi toll gis Sénégal ki mu jox bopp ngi nii nga xamante ni sound yooyu yëpp c'est des sons yoo xamante ni bu ñu ci def rek après am na présence te it la donc kon je mu dikk que Taïdi am na lu mën a def ci musique sénégalaise. justement donc euh, parce que ay sénégalais ñoo ko créé moo tax peut-être que mu am ay critiques bu bëri donc gars yi nee nañ euh, beat bi euh, c'est pas typiquement rap. lan ban tontu am ci waa bon typiquement rap typiquement typiquement rap si flow moo koy def si lépp moo koy def c'est-à-dire nit ki ak nu ñu la indil rek euh, boo joxoon boo joxoon artiste bi loo ko jox comme bit mën na si rap. comprendre man tey jii yu Ndour mën na ma invité ci sans na ma rap ci donc loolu noonu après ay détails la mais. donc ay ay détails la mais tey jii su ma la waxee sans nu néegu góor ndax rab la. Mm-hmm. di ni waaw. su ma la waxee sànq ak fi réew mi tool ndax rab la di nga ni waaw set li liy dérange peut-être nopp doomu aadama bi mooy la fait que mu dégg ci benn tama parce Sénégal dafa am tendance même bit bu ci déggee tama jàpp ni lii du rab bu ci déggee ndën te loolu bay instrument la te ni ni guitare nekkee instrument ni leneen nekkee instrument donc il faut que déjà ñu xam ni ñun ñi koy def xam nañ bu baax li ñuy def te xam nañ fi ñu ko bëgg a yóbbu te amul fenn si àdduna bi foo xamante ni si pays africain yi yor nañ seen jabu rab nga dem si artiste africain yëpp dañu yor seen jab ni ñuy rabee ci kaw rab donc te jéemuñu toppandoo américain yi ñu toppandoo français yi ñu toppandoo ñeneen donc ñun il faut ñu am esprit boo xamante ni il faut ñu am nu ñuy ay jàpp yu ñuy duggee si kaw ay bit yoo xamante ni mooy waral tey bu ñu ko dégloo rek ak foo mënti nekk si àdduna bi nga gis ni Sénégal am na benn identité am na benn jàpp bu mu am ci ni muy defee affaire yi quoi. Mm-hmm. mais na mais bu fekkee da ñëw ci géew boo xam ne ay américain la nga ne da ngay ñëw pour ji jommal leen ci ñoom loo xam ne ñoom ñoo ko créé génne ko. Mm-hmm. après guignol ngay doon mais boo indee say affaire nag si ngay nekk koo xamante ni originalité bi day am en mm-hmm. euh, lim nga lim nga voilà son yi génn def ak taaji bit bi. donc ñu bëri nee nañ boo leen tegoo ci biit bi rek euh, benn rythme bi ngeen di jël. Euh, la finish day Mm-hmm, mm-hmm. macha allah euh, su waay xam na gars yi euh, bon je peux dire que euh, dama lay jox benn exemple tous ceux qui disent que ni genre affaire bi dafa war a nekk rap rap wala du rap rap dama lay dama lay jox benn exemple bu yow yaakaar naa ni ñun def nañ on a les bancs jàng nañ dañ jox devoir am ñaar nit ñoo xamante ni dañoo dend mais suñ joxee su professeur bi di corriger. da ngay jékki-jékki devoir bi ak devoir bi nuroo yaa ngi may comprendre te daf leen di woo def confrontation da leen yéen ñaar kon da ngeen doon tricher comprendre nga cependant Sénégal dafa bëri ay artistes rapport yiy tricher tricherie bi mooy dañuy dem déglu ji américain bi flow bi mu utiliser technique bu mu def beat bu mu def ñu daal di koy jël copier ko ñëw taxaw moo tax du saf sax américain bi quoi c'est-à-dire que ni guignol la lay jàppee comprendre nga mm-hmm. euh, ki nga xamante ni moo créé rap teg ko ci quatre ans ndax moom dafa tere ku ci yokk wala moom yàlla la boo xam ne ñun daal dañoo war a ñëw rek pour jaamu ko mm-hmm. li mu teg daal moom la ñuy ñëw respecté ko ne waaw kii moo fi ne moo ko fi indi ñun lii lañ koy respectel pour dem ak moom mm-hmm. déedéet musique nekkul loolu musique continuité la musique apport la en fait nit ku nekk da nga war a ñëw mettre la pierre à l'édifice c'est-à-dire que nga ñëw fekk benn affaire nga ne ok lii de su ma ci yokkoon lii wala su ma ko defee nii tout en tout en tout en respectant les normes yaakaar naa ni loolu mooy gën a di nga xam ne kii au moins il a apporté un plus en fait te Akhlou Brick ci loolu la nekk ci loolu lay nekk di creuser xelam pour le taaj bit pour def ndax kenn du wax ne taaj bit teguwul ci 4 ans waaw sinon wala yow xamoo luy luy luy luy musique en fait lan mooy norme musique ñun ci loolu la ñuy nekk di dox. on a amené quelque chose nag boo xamante ni nii dañ ko xool ci su si ñun parce que liñ naan liñ naan sa sa local sa localité rek moo la mën a jaay moo la si nga mën a propulser woo si la nit yi di gisee seen bopp amul kenn koo xamante ni umpule na taajaboon te que sa soit pël jola séeréer n'importe quelle ethnie da ngay way taajaboon ci même rythme nga koy way bu la neexee nga way ko ci sa langue waaye ci même rythme bi nga koy way et dañu natt rythme bi jël teg ko foofu mu nekk rythme boo xamante ni dénominateur commun la pour tous les sénégalais kenn ku ci nekk mën ci gis boppam léegi nag sénégalais yooyu noonu yëpp buñ ci gisee seen bopp loolu moo tax affaire bi benn Mali di ñu yéendu naan lii la benn Guinée ne lii lan la sous région bi dem ba nga xamante international bi mën na dem donc loolu moom mooy deal bi quant à affaire de monotonie bi gars yi di wax ndax benn rythme la je te dis drill bi ngay gis benn rythme la pourtant le sénégalais n'a jamais souligné ndax lii dafa monotone reggae bi ngay gis benn rythme la te pourtant le sénégalais n'a jamais souligné que ni lii dafa monotone mbalax bii ngay gis ci dëkk bi chaque jour benn rythme la bongo maa waaw xoolal xoolal même rythme lañ lay teg te pourtant tu ne dis jamais benn dafa monotone pourquoi Akhlou Brick bu génnee benn affaire jël teg ko rek tu di ko que woy même même bi la dafa monotone dafa monotone te pourtant c'est pas sax monotone ndax à tout moment on t'amène des des styles yoo xamante ni ak des façon de refrain yoo xamante ni par force hook bi danga koy da koy déglu day ñëw à tout moment moom la nit yi di nekk di TikTok et cetera et cetera te ñun dafa am benn constat bi ñuy def nekkul que ni musique bi rek la ñuy def toog taxaw di ko dañuy natt doomu aadama yi parce que àdduna moo tollu ci rythme àdduna moo toll fu nit di nekkee en mouvement léegi nag mouvement boobu dangay dem bay natt ci instant bi fan la tempo bi tollu ci mouvement wu doomu aadama léegi nga dem ba lari avec l'arrivée de TikTok ngay gis ni képp koo xamante ni yaa ngi saxaw sax yaa ngi toog sax c'est très rare ngay gis nit ku toog di TikTok soit day direct waaye képp ku gis muy muy TikTok la majeure partie day jóg te bu jógee fecc moo ko tax a jóg cependant kon yow da ngay ñëw fekk si ko si rythme boobu parce que jamono mooy dox te il nga yàlla may nañ ñu fekkee jamono boobu dañoo war a ànd ak moom loolu la quoi. donc su ma comprendre da ngeen di euh, euh, jël côté boobu nga xamante ne c'est pour voilà ay ak ay son euh, Snap comme ni ko gars yi di waxee loolu ngeen parce que son cassette carré kenn génneetu ko ah. Hmm. parce que dafa am ñu ko fekkee woon. je m'excuse euh, donc son cassette carré kenn fekk euh, am na ñu ko ñu ko fekkee woon léegi kenn génneetu ko boobu doon na woon xam waa ji kan la da doon déglu rek ci sa magnétophone ñu doxalaat ba mu yàgg son wu CD guddi ñu toll kenn yoratul lecteur CD jamono la woon ñu doxaat ba mu yàgg clé USB tey jii nii mu ngi raar ndax à à travers li nga xamante ni moom mooy téléphone mm-hmm. téléphone ñëw na TikTok ñëw na yombalal nañ ñu ko parce que jamono dañ koy dégg quand yàlla bu yàlla bu yàlla ñooy wax ne la lem na asamaan ak suuf te pourtant yow Ibrahim leer na la ba leer ni yaa ngi ci suuf si gisoo mu lemu asamaan yaa ngi koy seen gisoo mu lemu kon nekkul ni lu foog ñuy réfléchir rek lay waxal mooy que ni yombal naa li nga xamante ni mooy communication parce que auparavant da nga doon dox di dem màkka wala ngay yéeg gëléem di dox tey lemal na la yoon bi ba jox la avion fët fët nga dugg biir en deux jours bien en trois jours nga àgg biir n'est-ce pas donc kon lem bi foofu la lay waxee léegi man mi nga xamante ni bëggoon naa ñu déglu ma te suñ ma bëggaanoon ñu déglu ma te nit yi ñoo ma tax a jóg dama doon dem ba ci télé bi wala ma dem ba ci rajo bi pour jox leen CD wala ma jox leen clé yàlla ne ma yombalal naa la yoon bi lemal naa la ko génneel naa la liñ naan TikTok est-ce que kon man duma dem foofu noonu mu gën maa yomb ah voilà donc nag sénégalais bi foofu la war di réfléchir mu bañ ni te aussi dafa am benn affaire boo xamante ni mooy faiblesse am moom buñ ko jiitoo ci benn affaire la sénégalais heure boo ko jiitoo ci benn application wala benn affaire bu xew nga njëkk ko ko xam njëkk ko faa jiitu moom da mujjee di critiquer waaye tôt ou tard fa mujj ji waaw loolu ñun jàng nañ ko te xam nañ ko moo tax musique foofu la toll quoi c'est ça euh, gis nañ euh, début bi ñëw euh, mooy rapport ivoirien yi ñëw ñëw Sénégal euh, tegu ci biitu mbalax est-ce que est-ce que lan ban jéego ngeen teg yéen pour genre boobu mën a am ci taalibe bi c'est-à-dire ay rappeurs yi nga xam ne nekkuñu sénégalais wala nekkuñu sax ay africains ñu mën a utiliser beat bi. bon loolu day wane ni rek day wane ni am nañ quelque chose de positif ci suñu musique mais problème bi mooy su ko keneen utiliser rek ñu ne gongo. bu ko keneen defee ñu ne gongo te fii pourtant nit ñi def nañ ko def ko defati ko mooy bit yooyu drill yooyu ngay dégg def nañ ko defati boo demee ci saawnu ndibaa bi di nga fa fekk drill yooyu nga xam ne day am mbalax ak rapport yu bëri yu nekk Sénégal def nañ ko mais day nice aussi beneen artiste yu jógee feneen def ko bu ko defee loolu day gën a jaay suñu musique gën a jaay suñu affaire nga jël bit bi nga jël sound bi def si benn taasukat ñëpp ne gongo te pourtant am na ñu jël taasukat def ko featuring ñuy def ay shout gars yi commencé eh, taasukat la jël kat patati patata donc euh, bu ñu bu ñu bu ñu xeeb li ñu yor parce que man gëm naa ni gëm-gëm bu ñu tegoon benn tam ak benn ak benn jéembe ak benn ndënd di ko tëgg kenn rek lamaan ñëw teg si suba sénégalais yëpp publier ko te man suma ko jëloon léegi teg benn tamakat benn ndënd ak benn affaire def ay nii nu ma ko mënti rawee après mën na am du leen safe quoi donc il faut ñu commencer di saf li ñuy fi ñu dëkk li ñuy def di ñu saf ba pare ñu ciy am compréhension bu positive di ci xaw a di xaw a rafetal njort ci ne ah kii kat mu ngi def musique depuis dix ans wala dara mais war nañ ko war a mën a may liberté bu muy exprimer musique yëpp pas mu tënku rek ñu ne ko sa waaye na xoolal wuy ma defee ko nii ñun nii lañ ko bëggee patati mais gis nga loolu damay may fàttali jay bi mu toogee di wax gaay naa ko jay yow léegi rabato jay lii mun leen xam nga lan la def naa ñaata album def naa ñaata son def naa ñaata nii bu fekkee rab bi ma bi ngeen bi ma bi ma doon def ngeen bëgg moom ngeen wax mu ngi si plateforme daal mu ngi fii mu ngi fii dem leen ngeen déglu bu fekkee ñi nga xamante ni li may def neex na leen ñu déglu c'est simple parce que musique tamit dafa judd ci liberté judd ci fun judd ci nga def li nga li nga sentir nga béggee quoi mais bu fekkee da nga jóg pour béggee def li nga sentir ay nit yu jóge fële yeewu peut-être seen xol neexul rek ñu ñëw ne la waaye ni nga ko defee nii yëngal sa maxaam ba nga ragal wala nga xaw a daw dafay nduru leneen te yow boo seetloo suñu carrière depuis le début xam nga ni Akhlou Brick dawul saala yaañ deer xam nga ni Akhlou Brick bu bëggee mbalax day mbalax bu bëggee rock day rock bu bëggee rab day rap bu bëggee reggae day reggae te loolu noonu am na public bu ko ko nangul ku ko bëggul nangu après ku Sénégal euh, nouvelle génération bi dañuy dañuy demander groupe Akhlou Brick ay featuring nee nañ dañuy bañ surtout yow déjà euh, ñaata featuring nga def ak jeune génération bi ak lan lan moo tax duñu la gis de trop ci euh, featuring yi. macha allah ça c'est une pertinente question man gisaguma ku wax kaañu ñu man ma bañ benn ñaar en matière de featuring tamit damay wax ni fiiling la man lu ma feel rek laa mën a def. lu ma fiilul mënuma ko def ñetteel bi mooy j'ai fait un featuring avec Diamane parce que au moment wu ci albumam il m'a appelé tout en me disant je ci featuring et dama bëgg nekk def nekk koo xamante ni maa maa njëkk a ak yow et on l'a fait mu ngi ci albumam bi nga xamante ni moom mooy titre bi si je ne me ami Abio da Seet Euh, ñu ngi def def def nañ def nañ ci li nga xamante ni moom mooy featuring bi euh, en même temps aussi euh, am na ay artistes yoo xamante ni woo nañ ma jarul may lim seen tur et dinañ def ak ñoom tamit featuring benn affaire tam dafa am yàlla moo may Arafat mu nekk waykat baatam gën a neex sama baat nit yi di ko soxla ñoo xamante ni c'est des rappeurs ñoom quand ils dañuy soxla ku harmoniser seeni sound parfois ñu ne avec la voix de Ara je peux avoir quelque chose cependant dañ koy convoqué dañ koy woo pour mu ñëw poser leen li nga xamante ni moom mooy ay refrain di leen ko téyel parce que man suñuy sound boo seetloo euh, c'est très rare ma téye refrain lu mel ne comme par exemple néegu góor laay ñëw téye refrain parce que sama baat bi si basse la nekk quoi dafa roog foofu laa mën a taxawee te loolu lañ soxla woon ñu jël jox ma ma teg suñ soxlaa loo xamante ni dafay neex nekk ci lu aigu wala dara dañuy woo arab pour mu ñëw def ko mais su ma rappeur convoqué pour que ñu def featuring ma xool xam ni man ak kii mën nañoo def featuring lii yëg naa ci sama bopp dama koy def eh, xam nga sénégalais moom dafa gaaw a gësëm nit waaye nit kooku bu dëgërul rek dina ragal ba eh, ku nekk rek day jóge fee rek ñëw ne la man rappeur laa te amaana amul sax continue ñëw ne la kaay ñu def yow nga ñëw def au au contraire yaa ngi écrasé li nga xamante ni moom mooy sa sa image te wax dëgg yàlla ah man du ma liggéeyee noonu quoi ni may liggéeyee mooy gis koo xamante ni nii kat yëg naa ko sentir naa ni lii su ma defee moom dina nice ci man dina nice ci moom ma ñëw def pourtant am na nu mu doon demee mën naa ñëw xool nit parce que la majeure partie nit ñi nit ñuy featuringee mooy damay dem pour écraser waa ji damay dem pour faj ko ci featuring bi te man du ma featuringee noonu bu jaree man ak yow dañuy toog ñu forme texte yi bindandoo ko defarandoo ko nga am lu rafet ma am lu rafet parce que on n'a pas besoin d'un de d'une personne talentueuse mais on a besoin d'une équipe talentueuse en fait suñu génnee ñu ne ah produit bi nice na ñaar ñi lañ def rafet na parce que loolu mooy collab na ngeen ngeen ngeen xetalante ngeen jàppalante en fait man c'est comme ça que euh, am na nag ñoo xamante ni maa ngi waaj ak ñoom

la jugee. lu bees la wala dafa yàgg nekk ci yow au delà sànq ci wéy lañ gën a xamee. waaw lan moo waral voilà nga génnee facette boobu quoi. bon man damay wax sax ne man mënuma way dama koy wax ne man mënuma way rab laa mën ñi ma xam dëgg xam nañ loolu ci man bi may juddu. ci musique nga xamante ni dama tàmbale musique tàmbalewu ma ak ay tàmbalewuma ak ay woy parce que bi may ñëw ci musique mënu ma woon woy léegi li ñuy gën di dem nag ñu ne dañuy soxla lii quoi dañuy soxla ku sóol ci affaire yi parce que xewoon na ci laa commencé di ko taxalee di ko taxalee di ko taxalee di jàng ci loolu di def xool code yi ba mën a comprendre na laay duggee si musique ba nii dew ma fenn damay jàng woy mooy mooy aara day rap te jàngul dooree mi fa wax naa ko ci benn sound donc man ci ci rab laa juddu ci laa mag man ak Dayza donc euh, bu ñu demee tey bañ ni dañu dugg ci musique après rab boobu noonu nekkul ay yeewu wala nday nalaw de non nekkul loolu yëpp da di loo xamante ni mu ngi si ñun muy ci Dayza muy ci man mais tey jii nag choix mooy def ask bu fekkee da ngay def musique ngay def choix carrière choix musical ngay xool lan nga mën a def su fekkee da nga bëgg a def it da ngay mujj indi code yi tax nga mun a def it bi ci ay yenn yi nga ko bëgg a soxlaal ba def it bi mais beneen bi mooy su fekkee ni rab la aussi bu la neexee nga rab mais buñ duggee ci classe bi man maa def choix wu rab en fait. yooyu lan def ci yow euh, bon moment yooyu fàttali na ma nag parce que moment yooyu nekk na moment yoo xamante ne je me suis dit ah c' est le moment ou jamais. man ak man ak man ak Deyza am na benn dés am na benn déséquilibre un peu du ma ko tuddee déséquilibre. mais déjà moo ne ma waa léegi wan leen sa rab booy dañ dugg ci classe bi aca demal wan leen sa rab ara aca demal wan leen sa rab man du ma rab comme déjà la ñëpp doon xaar parce que pour pour ñoom bu déjà ñëwee léegi déjà ne nañuy yónni léegi ki nga xamante ni sax peut-être mën nañ jàpp ne mooy maillon faible hip hop ci suñu groupe bi quoi peut-être moom te gars yi ñi xam musique dëgg xam rap xam nañ ara quoi ñi xam musique xam rap parce que musique balaa ngay wayi wala ngay mën code way nii rab mooy nekk base bi en fait léegi euh, rab boobu nag bi mu ñëwee ma ne ah man de maa ngi ni temps yëpp di wër lu nooy lu mu mën a jàpp rek xam nga këlëb di googu <laughs> si la si la jege-jege rek dugg ji fooyee ko daw génn ko non waa gars yi sénégalais yi nag moom am nañu ci seytaane yoo bëgguñu mu jeex <laughs> <laughs> mais ñun ñun ñun moom bëggoon nañ mu jeex na nalawuñ lekkuñ sonnoon nañ tellement ah classe bi nag dafa laajoon xaalis parce que booy clashanteeg ñun da ngay yor mën yi que ñun gars yi wax nañ ko Akhlou moom clip da koo yomb Akhlou Brick son da koo yow parce que ñooy toog suñu studio ma ak moom mën nañ toog créer suñu sound parce que dañuy arranger suñu bopp defal suñu bopp lépp kooku nag nga bëgg ñëw dugganteeg moom si clash après moom mu jël temps am toog mën a def sound benn fan xëy suba kilip ko génne ko bu moment boobu ñu dugalee clash bi ci côté boobu après si la xaw a ci la xaw a metti te kuñ ci dugal dina. waa dafay dafay xaw te dafay daf doon laaj moyen laaj ay affaire laaj énergie bu bëri. donc après nag bon classe bi tamit même bu continuer woon muy si côté mag suñu côté yëpp après looy dem da ngay gën a épuisé parce que nit nit nga nga xalaat tey bind tey dugal ko tey gi xëy tey clip ko tey mu génn tey loolu noonu rek il faut nga am énergie dëgg pour def ko et on l'a fait avec cinq cinq sons et on a sorti les quatre amoon benn bonis mais après moo ñu xam ni mooy loolu euh, non ñun on n'était pas ci classe bi pour ay gagner ak perdre parce que quand tu fais quelque chose bul ci xaar ay damay gagner wala damay perdre philosophie boobu rek déjà philosophie perdant la mooy le fait sax nga am philosophie ne am na perte bu ci nekk wala looy perdre mais ñun amuñ lu ñuy perdre parce que ñun lu ñuy gagner rek la ñuy am y la visibilité il y avait beaucoup beaucoup de yoo xamante ni déjà nit ñi am nañ ko ci euh, ñun am nañ ko ci classe bi musique classe bi tamit indi na ko ci game bi qu'est-ce qu'on a perdu muy moom muy man muy keneen muy ñeneen ñi doon déglu hip hop yëpp y a pas amul perte quoi pour man li ci am mooy quelque chose de positif lu ñëpp kenn xamul woon si ñun parce qu'on n'a jamais classé musuñ classe kenn donc ñu dem ba benn jour ñu ne ñu tëj xoos ñu daal di riposter indi benn affaire indee ko nag beneen facette boo xam c'est plus positif plus pesé amul reewantu amul dara ñu teg ko si norme yi nga xam ne ñun moom lañ doon am comme philosophie mooy pas saaga la ndey pas dugg sa jabar pas dugg sa yaay pas wax sa papa pas wax sa doom ñun philosophie boobu la ñu am si classe dañu yar bëgguñu dépasser yenn bornes en fait parce que duñ ko bëgg defal ñu ko loolu moo waral ci biir classe mu ni nga dof ñu lay kii ngay saaga nii. <laughs> député député donc ñu ñëw ci côté boobu seen paroles yi euh, ci classe yi. donc euh, gis nañ voilà nga que euh, parfois mu wax les des moo déplacés mais moo yooyu da ngeen koy sauté comme genre voilà ni mu waxee kaw la xam ne yéen ñëpp ay taalibe bàyyi ngeen foofu ngeen jógee lan moo waral choix boobu à chaque fois ngeen di éviter ay peut-être ay sujets yi nga xam ne je peux dire que c'est un peu sensible mën na indi leneen pourquoi le choix n'est-ce pas de ngeen bàyyi loolu à côté. waaw dañ ko doon dimbale parfois nit dina ñëw di wax te peut-être que li muy wax amaana du koy du koy maîtriser je dirais pas affaire de Kaolack affaire de Kaolack moom graawul daa am ñu ñëw suscité ko yëkkati ko mu dem pour bëgg ko pour bëgg ko tëmbal quoi pour bëgg ko dugal honnêtement euh, moo tax loolu su ñëwuñ ci waxuñ ci dara ngaa ko jullit la euh, juróom-ñaari xelam mayu ko muy dugg ci affaire de Baye Niass wala affaire de Serigne Touba wala keneen ak keneen ndax nit la quoi foofu moom lu muy doon ngaaka ngaaka ngaaka foofu day tudd Baba Ndiaye comprendre nga du dugg ci du dugg ci domaine boobu en fait mais euh, day dugg foo xam fi su duggee fi nga xamante ni nag dafay am insulte laal papa laal yaay dañuy ñëw pour mu nekk nit foofu dañ ko naan déedéet du fii mbir mi dañ ñun dañu tere saaga te doo ñu saagaloo en fait maanaam dañ ko doon dañ ko doon sauver ci côté boobu quoi pour que après bu ko defee musique am gën a mature muy bàyyi di saaga wala par ci par là côté boobu quoi mais quant affaire de bàyyi Niass moom très sérieusement dafa am ay nit yoo xamante ni bëggoon nañ ko jaxase ak ñooñu Euh, ñaseen yi wala dara ñu jëw di influencer di def te loolu nekkul lu rafet nekkul luy lu jaadu nekkul luy luy yoon quoi parce que ñun li mu wax ñun dégg nañ ko quoi c'est pas garaawul loolu mettiwul quoi moo tax euh, Baye am si génn na wax na si ne non non loolu mettiwul teg ñëpp xam nañ ni tamit mettiwul ndax loolu dawul suñu yaram quoi c'est ça euh, relation comme relation ñëpp rek parce que comme li ñu la waxoon la fois passée mooy ngaaka ñun yàlla def na ni euh, ñaari yoon parce que su ma juumul ñaari yoon lañ mës a gisante euh, mooy bi ñu defoon sayfa bi si avec Waydi ak beneen bi ñu daje woon Grand Théâtre benn concert wu je crois waa daara ji famille la woon ñu defoon fa benn daje Euh, ñun ñëpp ñu daje woon fa je crois que ñaari gisante yooyu lañ mës a gisante euh, yàlla def na ni yoruñu numéro téléphone téléphone am moom yorul suñu numéro téléphone waaye jàmm lañ ko yéene et je crois que moom tamit c'est réciproque quoi kenn ku ci nekk yaa ngi suivre sa carrière yaa ngi dem pour bëgg góorlu yóbbu musique sénégalaise bi foo gën a dépasser fii nii quoi loolu la mhm. merci euh, def ngeen fi benn album album 100 pour hip hop zéro Euh, loof son mbëggeel donc je pense que c'est une première sax ci rap Galsen euh, pourquoi ce choix choisir ngeen rap te amul featuring amul euh, son mbëggeel donc mu nekk 100 pour cent rap lan moo waral choix boobu bon pour gàttal loolu noonu stratégie la déjà dañ doo def album ñu sentir ni dañ ciy bëgg wane lépp mooy su ñu def album dañ ciy def benn son lii benn son lee benn son lële jéem a def aussi ay style yoo xamante ni souvent da doon bëri bon ñun nag loolu suñu choix la ñun ñoo jël suñu choix de def ne dañu bëgg su ñuy defati album ñu def album boo xam ne su fekkee albumu rap la ñu tuddee ko ne album bi albumu rap la ñu def ci ay soundu rap. bu fekkee dañu bëgg a def albumu mbalax ñu xam ni sans album bi albumu mbalax la ñu def si mbalax su fekkee dañu bëgg a def albumu taaja beat wala albumu rock wala whatever ñu tuddee ni album bi albumu lii la ko en bu ko defee ñun dinañu faciliter suñu public bi nga xamante ni su dee dafa gis boppam si album boobu mu dem jël ko déglu ko gis nga ko ci albumu américain yi quand Snoop a voulu faire un album reggae il a appelé son album. Euh, mu jël mu tuddee boppam Snoop Lion dem biir Jamaïque enregistré un album typiquement reggae gis nañ ko ci Youssou nduur mu def ko album acou benn album boo xam ne acoustique la nii Youssou Ndour a fait un album. yeah def na benn album def na benn album boo xamante ne album bi albumu album afrobeat la mu génne ko biir bi ay Nigéria génne ko ci plateforme yi ci àdduna bi yëpp te sénégalais say yëguñ ko donc des fois dafay baax bu fekkee da ngay changer registre daf lay permettre nga mën a découvrir yeneen univers ñun nag dañu bëgg déjà maintenant suñu public tàmm ne al Akhlou mën na xëy jox la albumu lii xëy jox la album acoustique xëy jox la leneen pour di mën a toucher yeneen public c'est ça. Raps Royce bi tur euh, euh, rapide. comme car rapide Raps Raps Royce moom moo jël car rapide ak Raps ak Rolls Royce car rapide parce que car rapide moo nekk li nga xamante ni mooy suñu euh, bokk na ci suñu euh, lu bokk si ñun Sénégal euh, ñu ràññeele ko fépp ci àdduna bi ba ay Nigérian ñeneen ñëpp di ñëw di def clip si car rapide parce que dafa yàgg si ñun muy moyen de transport boo xam ne moo gën a yàgg si ñun léegi nag mu bokk nag ak Rolls Royce beneen oto boo xamante ni oto de luxe la léegi ñoom ñaar lañ boole pour wane ni ñun suñu rab bi ñuy rap mën nañ ko rap mu tegu ci quatre ans tegu ci leneen mais nekk lu luxe nekk lu loo xamante ni nit ki mën na ko déglu jariñoo ko nekk lu nit di dégloo ci confort lu nit di yéeg mu transcender ko en fait ci côté boobu lañ tuddee album bi Raps Royce pour euh, joxe waale aussi suñu identité si ñun lu ñu am ba pare mën ko mélanger ñeneen ñi lu ñu am parce que bu dee raps ñoo ko moom ñeneen ñi moom Rolls Royce parce que raps fii gars fii lañ koy tëggee defar seen affaire teg seen Versailles toog mais ñële Rolls Royce ñoo ko moom léegi seulement échange lay nekk entre ñun li ñu am ak ñële li ñu yor ñu boole ko mën ko def chaque jour ñun ci côté boobu lañuy ñuy waxee. d'accord ci ci biir album bi euh, son liki donc wax ngeen ci rab euh, rap galsen doxul dafa yéeg dafa yéeg ci gal bu jeng ah euh, rabooleel moo tax melomaan yi. ñu mooy si rab bu dee bi rab bu dee bi waaw rabu démb rabu démb rabu démb donc euh, est-ce que mën nga expliquer euh, phrase boobu rab gaal seen biir doxul daa yéeg ci gaal bu jeng quand on le dit mooy euh, dafa bëri ñoo xamante ni tey dafa bëri ay farafar te gaal bu jeng moom nu tous nu savons que ni mooy lu demee côté dafa bëri dañuy gis nen waaye duñu wax ni nen a ngi nii en fait parce que su ma waxee ni nen a ngi nii sama empire day daanu su ma waxee ne lii la damay yàqule wala dara produit yi da nga leen di gis ñu xam ne kii nii da talent mi ngi ci moom aay na mu ngi lu mu ngi propulser mbir mi waaye ñëwoo pour ne xaaral ma pousse ko pour Sénégal dem dem ci kanam mais déedéet su ma ko poussé moom mooy feeñ man dootuma feeñ raison pour laquelle on a dit que ne Rap seen bi demul daa yëg si gaal bu jeng nous tous nous la savons parce que tamit kulul xaq walaw kaana muran buñ bu dee dëgg rek dañoo war a waxante dëgg te soo ko seetloo da ngay gis mbir mi dafa bëri ay farafar farafar boobu moo tax nag suñu musique bi tardé. Euh, xam ko comme comme lan par exemple. bon quand di je di quand je dis euh, da ngay gis ni parfois euh, su sudul su dul comme par exemple la capital suñu nee musique la musique la capitale bi la majeure partie soo fi dëkkul wala. nga jóge foo xamante ni xaw na sori cër boobu noonu nga fayit ba toll fii pour nga am ko mën na nekk mën na nekk genre problème comprendre nga mm-hmm. mais il te faudra que yow nga góor góorlu rek ba mën a percer ba mën a buxal sa bopp xam nga lu ma la mm-hmm. loolu tamit dafay am et parfois da ngay gis ni euh, day am nan laa ko mën a waxee ñu woote or ONG wala organisation yoo xamante ne nii dañ naan attend ñii ñooy am ñii amuñu est-ce comprendre nga mm-hmm. donc tey loolu mooy tax mbir mi pour ñu defar ko il faut ñun ñëpp ñuy mën di xàccandoo di doorandoo en fait. xam nga mu am beneen affaire tamit boo xamante ni moom laa doon souligner tey bu ñu demee benn Akhlou Brick ñëw wala keneen ñëw ne day organiser concert. en tant que artiste mooy nekk producteur u concert boppam. ndax rab gaal seen bi dox na doxul kon daa yéeg ci gaal gu jeng. comprendre nga parce que tey bu ñu demee ba ay promoteur nekk si dëkk bi il préfère dem woo ñeneen ñoo xamante ne te loolu kenn baniiru ko kenn bañu ko. waaye ñeneen ñoo xamante ni da leen di fay te soo doon tëgg ak ñi nga xamante ni ñooy artistes yi nekk si dëkk bi ñooñu peut-être fay bi nga leen war a fay soit njëgu beñe lay doon wala dara ah euh, su boobaa tamit ba tey affaire bi doxul day mel day daa yéeg si gaal gu jeng n'est-ce pas mm-hmm. donc foofu lañ doon foofu lañ doon foofu lañ doon waxee en même temps aussi euh, genre am na leneen loo loo liiraat si hmm, comme par exemple day ñuy déglu rabu démb baal ma ci verre bi. waaw waaw ñuy déglu ci waaw raboo leen moo tax melomaan yi rab ci ngoy eh, ci rabu démb comprendre nga parfois comme li mu leen di wax rek da ngay gis ñoo xamante ni c'est c'est du éco trip quoi raboo moo tax peut-être que puriste bi naan la man lii laa gëm rabu démb bi laa gëm lii laa gëm lii laa gëm donc loolu loolu la quoi ci son aussi bi ngeen tuddee xar sa tànku xar tubéy waaw xar xar mm-hmm. donc euh, ngeen ngeen lancé jeunesse bi benn message est-ce que mën ci euh, parole <laughs> ñëw ci benn message mm-hmm. da mun euh, xar tubéy déjà message la boo xamante ni bon lancé nañ ko juste parce que ñun lañ ko lancé suñu bopp mm-hmm. parce que ñun it ay ndaw lañ ñaareel bi génn guñ ci ñaareel bi pare guñ ci ndaw bi ñu nekk donc euh, bu ñu demee ba woy tànk xartu bay juste dañ bëgg a wax ndaw bi ne ah lépp kat ci xartu bay la nekk mooy nga jóg jaayante ñàkkante man damay faral di wax que ni rek euh, boo nekkee ndaw bul teg sa bët si tekki rek loolu la a wax ci saan bi teg ko si li nga bëgg a nekk même bu nekkul ne ci rek boo xoolee ndaw yi léegi dañu bëgg a jóg rek ñun ñii ñun loolu mooy suñu foogu léegi dañuy jóg ne dañoo bëgg a tekki foog ñu tekki tekki tekki léegi moo tekki tekki boobu nag boo ko bëggee dafa am lu lu koy indi da am ci loo nekk mais da ngay bëgg a tekki te amoo ci loo nekk fooy looy tekkee ci looy tekki léegi nag loolu ñu ngi koy wax ngeen mooy da ngay am ambition en même temps da am vision man en même temps da am projet te man damay wax moo focus bi ñuy wax fokkis fokkis focus lii focus lii gis nga focus xam mu baax. Mm-hmm. mooy nga fokkis yow si benn affaire boo xamante ni nii déjà si sa life bopp la ci lan ngay focus yow. Mm-hmm. ci sa bopp lan ngay focus ban projet nga am focus yi mm-hmm. te ñu dañuy bëgg laal projet yu bari ñu bu nekkee ndaw bu ñu laalee fii gis ke Samba Ndiaye de affaire am dox na ci affaire bële nga bàyyi bi nga jàppoon dem ci bu Samba parce que moom moom basam dox na. te xamoo Samba moom dafa focus ci basam boobu pendant peut-être des mois des années des jour yow léegi ci lan nga fokki en fait questionnement pour tout un chacun jeune bu ne da nga war a toog ne man lan laa bëgg boo xamee li nga bëgg ba pare nga nekk si parce que ci li nga bëgg rek ci ngay tekki ci li nga bëgg parce que doomu aadama bu juddu li nga mën mu ci li nga bëgg donc bëggal dara ba pare nga ni ah ok kon man lii laa bëgg kon li ma bëgg moom laa mën parce que soo ciy dem doo ci demee demi mesure te sa énergie doo ko compter de ce fait mooy indi léegi nag loolu dem ba indi rentabilité si li ngay def wala si li nga am donc man loolu laay wax ndaw yi ne nañ fokki si seen live focus si benn affaire bi nga xam ne moom lañ bëgg fokki si benn tekki boo dee football nga focus si entraînement focus si leneen bu dee leneen nga def ko quoi. d'accord donc euh, ñàkk jot ban ban ban message euh, aussi ngeen bëgg a lancer ci son parce que gis nañ ne voilà dafa xaaw a kii de trop quoi ñàkk jot bi. ñàkk jot bi tamit boobu ñu ngi wax ci les maux de la société boo ko seetloo aussi di gën a encourager li nga xamante ni moom mooy doomu aadama parce que am na ci benn partie boo xamante ni maa ngi lay wax euh, mbokk xoolal nu yàlla maandoo euh, nit dëkkee di njaaloo nit weer ko te yàlla mosu ko weer sutura yàlla baangoo donc loolu rek dafa nekk benn verre boo xamante ni dafa nekk loo xamante ni kenn ku ci nekk mën nga ko déglu pour bëgg a jariñu parce que yàlla daf ñu wàcc fii ñun ñëpp wàcc bi mu ñu wàcc ba pare kenn ku ci nekk mu bàyyi laag sa ayib nga am ay ayib ma am ayib ki am ara am ayib keneen ak keneen am ayib léegi ayib boobu te yàlla def ñu jékki-jékki nit di nit nit nit nekk di di njaaloo moroomu nitam moo ko filmé moromu nitam moo ko daw woowaa waa dëkk bi ne leen kaay leen ngeen xool te pourtant yàllaa la ci gën a gaaw fop yàllaa la ci gën a gaaw fop te pourtant da koo suturaaloon yow yaa ñëw ne kaay nga kaay kaay man maay ki koy ki koy weer raison pour la laquelle j'ai di euh, mbokk xolal ni yàlla maandoo nit dëkkee di njaaloo nit weer ko te yàlla mosu ko weer sutura yàlla bangoog te yàlla wax na ne sama yërmande bi lu muy bëri bëri bëri bëri sama sutura bee ko ëpp te on dans un Sénégal boo xamante ni guddi kenn xamatul ban Sénégal lañ nekk Sénégal bi ñu nekk mooy Sénégal kaa Sénégal boo xamante ni nekkatoo ci sa bopp mais léegi yaa ngi ci yëfu jàmbur Sénégal boo xamante ni sa mission yëpp mooy tey bu ma xëyee kan laa war a weer tey kan laa war a wilipande ci askan bi Sénégal boo xamante ni sutura amatu fi euh, mooy que lu ma gis rek dinaa ko wan dëkk bi dinaa ko kii dinaa ko weer kii dinaa ko toroxal dinaa ko dinaa ko dinaa ko te loolu noonu euh, pourtant amaana su nekkoon réfléchir nga tuuti rek yow leer na la ba leer ni denc nga ay ayib yoo xam ne tey buggoo woon benn mbindeef xamal la ko yow yaa ko téyel sa bopp te buggoo woon kenn kenn kenn xamal la ko pourquoi nga jël ba su kële ne da nga koy dem di xamale ci donc foofu moo tax yàlla di wax ne sama jaam képp ku ko weer loolu man ak yow la quoi man yàlla naa la naa la weer bëccëgu ndar kàmb donc ñu nekkoon di di di sensibiliser nit yi ci côté boobu xam nga euh, pour que ñu gën a ñu gën a ñu gën a góorgóorlu gën a gën a gën a gën a indi mbaax gën a indi yërmande gën a indi partage si si si seen si seen si si seen mm, synonyme quoi loolu moom la sound boobu di wax quoi mu nekk li nga xamante ni mooy euh, mm, le titre du son c'est si je ne ñàkk jot. ñàkk jot ara aussi ñu gis ne am nga fi nga sànni ay pic euh, deep donc ñu euh, bëri loolu lañ gis d'ailleurs donc fi nga waxee ne euh, am am milliard jënd pliant jënd Paris jënd client. ok c'est à dire client la ñu bëri yaakaar ne deep du ñu gis ngay sànni ay pic ban réponse ngay am ci loolu. <laughs> parce que gis nañ gis nañ deep featuring ak BMG. waaw mu wax ne moom mooy Kylian boo ñëwee nga ne nga jënd Kylian Mbappé voilà <laughs> moo tax yi yaakaar ne est-ce euh, moom ngay lancé ay pic bon bon <coughs> perception doomu aadama yi mënoo ci dara te te comme comme musique comme comme li may waxee rek xam nga rap texte natt la mm-hmm. te boo nattee ba pare rek day am ku ne day teggi ne maa lii maa moom mm-hmm. te public bi aussi ñoomit des fois seen rôle la ñu am entendement boobu ñu am perception boobu ne diw moom moom lii parce que man ça m'arrive rek des fois ma yeewu ñu jékki-jékki sànni ma ay affaire rek wala ñu bind ne diw nee na yow yaa moom lii parce que damay waxtaan ak Simon ñuy waxtaan ma ni ko hip hop seen dafa neex quoi parce que soo yeewoo rek. am kenn ku ne damay xëcc biri gi toj biri gi damm biri gi rek benn booy wala wala keneen daal di gaan bi neen day damm biri gi ne mais bu biri di am man maa juddu <laughs> ma ne waa mais nañ ko ci loo fi ku ne day xëcc dara ne moo ko moom parce que Kylian Mbappé ni mu nekkee taxaw ñëpp di ko tudd ci lu nga xëy waa léegi ku ne Kylian rek am na ku moom eh. <laughs> di juddu xamu ko mm-hmm. yeah, yeah, whatever. It's okay. <laughs> so, so lolu, c'est des détails en fait. Pour man, hip-hopper yi, gën nañ mature loolu quoi. Le public nag am na droit de perception bu muy am si benn affaire wala mu jéem a xam nga. parce que ñun ñëpp ci hip-hop bi xam nañ xamante bi ni muy demee ba ba kenn xaw a rëccile wala mu def faux pas rek def benn son ne day wax. parce que boo waxee rek mooy jaaxi nga ñun nag meluñ noonu. beneen bi mooy son bi boo ko dégloo. dama tàmbale si am am laa tàmbale man damay bind suma bindee son foog nga dégg am dégg-dégg pour dégg li may wax te li may wax day am ligne te ligne bi may waxee day fort day xóot nag am na lu ci laxasu mën na ne mais dama ni dama ne euh, fu ma commencé amul yorul mais wax jee bëre mhm. ku ne sa fee ku ne sa doole ngay feebaree bés penc loo denc lu dul sa jëf amalu intéret ku am mille amul yorul laa wax de mais nag ma ni la yow boo amee mille na nga doylu ku am mille jënd xasu loor ku am million laal perfusion loolu mooy amul yorul mais wax jee bëri ku ne sa feeb ku ne sa doole ngay feebaree léegi nag looloo waral troisième que ci verbe bu mujj bi beneen verbe bi ma ni am mille jënd xasuloo kon boo amul yorul ba pare léegi nag ku ne sa doole ngay feebaree maanaam yow boo amee mille francs wax dëgg yàlla loo feebar feebar boo amoon 1000 francs feebar même bu doon cancer la lu mu mënti doon boo amee 1000 francs non non xam nga ni sa doole per agul perfusion agul ay yooyu da ngay dem nga jënd benn xasuloor naan ko moo tax ma ni am mille jënd xasuloor am million laal perfusion sa rapport trophée xott butéel ara chef mooy laal corridor parce que loolu chef d'entreprise laay ñoo di foofu ne man chef d'entreprise la kon donc man yow booy xëccoo ay yenn trophée ay mbii maa jël award si bii man maa ngi xëccoo trophée bu may demee ñu jox ma corridor en tant que meilleur entrepreneur de l'année man loolu laay wax léegi bu ma jugee foofu arachef mooy laal corridor am million am am milliard kon maa ngi am mille million mais vert bi waruma tëb milliard kon donc si logique gu bind su ma nee am mille am million war naa war a mën a wax milliard ma ne am milliard jënd pilian jënd Paris jënd kiliyaan boo yow lan mooy sa rêve doon président del naan ay duuli prendre du ma best rapper life yëpp best papa la yow boo nekkee di xëcc ci foofu aussi lan mooy président <coughs> waaw mais yow bu fekkee ni pare nga pour def politique pare nga pour def lu la neex pare nga pour def loolu c'est sa la mm-hmm. président nga bëgg doon mais parel pour lépp parel pour wax ni maa waxoon waxeet parel loolu ma man ma ci logique boobu <laughs> you know yaa ngi comprendre fi may waxee donc loolu yëpp logique bind la boo nekkal président après moo wax la ne la yow best rap best du ma best rapper life parce que best rapper life yaa ngi dund tu tu te dis man may best rapper bi dund ci àdduna bi yow loolu mooy sa rêve loolu moo nekk sa xel man loolu newul sama xel man best papa moo nekk sama xel mooy ma am doom jéema a xool fu ma koy teg ba teg ko si logique bu cool moo tax ma ni du ma best rapper life man best papa laa yes du des si jëmmi yàlla tigi tigi ak saa mooy bi may wéetloo ci jëmmi yàlla ji di wéetal loolu laa gën a tal que ay leneen ak leneen donc texte bi am na lu si ne mais bu fekkee nag yow yow aara bi ngay déglu te nga xam ne am na caay caayu bind am na loo xamante ni mu ngi si biir yow boo am boo dotewul de savoir mënoo comp fi may waxee. donc euh, juste avant dernière question balaa ñuy ñëw ci euh, concert bi donc euh, seen vidéo bu mujj bi je pense que lire ngeen sax commentaire yi ñafal. ñafal waaw. yi gars dafa image yi donc dafa sexy de. non non. commentaire yi waaye foo tourné. Mhm. gars yi nee nañ non ahlu brique donc. yàqu nañ. wala <laughs> ko voilà. lan lan xam nga ki naan la diw yàqu na moom. Eh. maxamam kawe na ndax yàlla may na ko bët yu mu gisee bay xool nit ki ci xol baak jikko ba dugg ca ruuxu ba ba xam ndax lii yàqu na wala yàquwul eh. kooku dëgër na fit mm. xam nga kooku dafa dëgër fit moo tax euh, kooku moom maanduwul te yàlla am na tur bu ñu naan al adlu muy tudd maandu maandu lay firi kon nit ki danga ngaa war a <laughs> da war a maandu loolu la la bëgg a woowee bon nekk na loo xamante ni d'ailleurs clip bi euh, tourné wuñ ko Sénégal benn partie bi ñu ngi ko tourné Côte d'Ivoire ñu nekkoon ci piscine bi ñooñu ñëpp c'est des Ivoiriennes tu as compris euh, beneen partie bi c'est des sénégalaises ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def euh, ñoo ko tourné mm. mu nekk loo xamante ni comme li ma lay wax rek musique Euh, dafa bu ñu jaawalee la majeure partie de la personne ak le personnage ni ñu bari nag noonu la ñuy loolu la ñuy loolu la ñuy nekk di jaawale. one des artistes dañuy nekk di liggéey dañuy nekk di jaay li nga xamante ni moom mooy musique bi ñuy def euh, cependant euh, critique tout sujet dafay nekk loo xamante ni ñun ñëpp xam nañ ko. dafay critique le sujet la majeure partie des sujets c'est des sujets critiques critique nag à tout moment dangay am ñu ñëw def ko mu positif am ñoo xam dañuy ñëw teg mu teg mu néga teg mu négatif euh, donc ñun yaakaar naa ni yàgg nañ ñëw sikk ci lu bari ndax fii lañ fi ñëw génn fi benn saawon ne moo di xamal li ngay yóbbu sénégalais yëpp du ma ne sénégalais yëpp am ay quelques nit yu génn yóbbaale benn mouvance te parfois gis nga boo nekkee arbuste maanaam nga nekk lu ndaw buñ la ñagul maanaam protéger la bëy mën na la jékki-jékki lekk la ngelaw li mën na la naawal nga dee comprendre nga garab dañ koy ñag loolu su ma ko waxee mooy am na ñoo xamante ni c'est des innocents kenn ay génn fële rek dugal la ci ay aaya lim lim lim yow nga tiit saan xamu comprendre euh, nga bëgg a toppaale kooku ba pare nga jàpp ñu sikkuñu léegi nag ñun dañuy ñëw pour ñag ñooñu protéger leen di leen hey ñun lii ñu wax nii dara nekku ci on di dit mawti seulement te mawti ça signifie la moor ça ne signifie pas malaaka ok donc loolu la quoi bu leen bu leen topp ñii parce que lii ñuy wax ñoom maîtriser wuñ ko xamuñu ko dañuy wax nii rek pour wax te nee nañ safara ñu ci bari lu leen fa dugal wax la ñoom bàyyi leen ñuy wax rek di wax di wax xam nga li ma la wax ñëw protéger ñooñu dimbali leen quoi euh, beneen affaire bi mooy comme que ñun tàmm nañ loolu critique critique yuuxu yuuxu yuuxu ñun on sait se défendre en fait et que nekk na loo xamante ni ñun ñoo la gën a xam lu lu lu lu jaadu ak lu ak lu jaadu parce que on est mature majeur aussi et vacciné yaakaar naa ni e nekkul loo xamante ni nii lu kii la mais eh, à tout moment nit moom da ngay génn am benn vague d'influence boo xamante ni dalee leer ni kii daf la bëggul daf la gëmul quoi et que comme que gëmula il faut que mu mu ñëw bind ko neex xaw am ñu mu yóbbaale donc kooku ñun comprendre nañ kooku fas boobu mais am na ñeneen ñoo xamante ne dañ naan yee ngeen def na yéen a fi ne ñu ngi fi te pourtant ñaar ñooñu ñëpp c'est des sénégalais donc ñun ku ñuy apprécier noonu lañuy ñuy gën a kii quoi c'est ça. voilà euh, yéen ñaari kankurang yi. Mhm. yéen soxla 5 millions de Dakarois le 13 juin fële ci esplanade Grand Théâtre. le 3 est euh, juin. waaw le 3 ci musée des civilisations euh, euh, euh, bu bu nekkee ni dañu jàpp le juin pour un concert biir musée projet la boo xamante ni déjà c'est c'est lourd parce que xam nañ musée lu muy engendré ci finance ci lépp loo xamante ni moo fa war a am yaako ko war a def Euh, mën nañu àll la quoi boo xamante ni esplanade la ñu jox la ko nga war fa teg lépp teg fa chaise teg fa bâche teg fa lépp donc euh, projet bu lourd la. mu nekk loo xamante ni nag dañ ko jàpp pour les fans de Dakar parce que dañu géej Dakar il y a six ans j'espère depuis 2017 lañ géejee def concert à Dakar ñu nag bi ñu géejee def concert à Dakar yëpp li ko waral mooy jàppoon nañu euh, ay concert mais benn bi Covid da ko yàq. depuis lors ñun gis ni nag c'est le moment idéal pour ñu teg concert depuis lors nag ñu ngi koy waajal mais bii ñu ne mooy moment idéal bi nga xamante ni nag sénégalais yi dañu bëgg a def ak ñoom benn moment de d'échange boo xamante ni ñun ñooy nekk ci kaw ñoom ñu nekk ci suuf ñu bégal leen ñoom ñu bégal ñu parce que noonu la ñu ñëw Dakar gis gars ni ñuy xaaree parce que ñun dañuy wax ni sax suñu briques yi dakaar lañ ëppee waa mbuur di ko waaj Sénégal yëpp di ko waaj mu nekk événement boo xamante ni nag dañ ci joxe parce que dañu nekk loo xamante ni dañ ko xaar depuis dañ ko xaar ñu waajal ko ci lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul ñu waajal ko ci bépp loo xamante ni par amour la quoi. donc te ñu pare pour def spectacle boo xamante ni ñun dina nekk loo xamante ni moo ñuy gën a neex te dina nekk aussi lii gën a neex fan si déjà gis nañ attente bi gis nañ nit ñi ni ñu ciy demee ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy demee ak foog <coughs> ñu ngi ciy demee ak foog ñu ngi ciy demee ak énergie donc di leen wax ni ñu xaar ko le 3 juin musée des civilisations avec lu Brick dina nekk lu nit mosul gis événement. ngeen jógee musul yomb musul yomb rien n'est facile fii àdduna la booy def benn affaire dafa am lu muy laaj li muy laaj def ko ba pare nga xaar résultat mais mënoo ñëw taxaw ne doo ko def ba pare bëgg dara donc du yomb parce que fi ñu dëkk tamit dafa xaw a sori dëkkuñu dakaar ñu ngi fi nag parce que Dakar ci ñun la bokk ñu bokk ci Dakar parce que capital la mais musul yomb mais du mës yomb aussi donc li ñuy wax rek mooy que ni. nekkatul difficulté yi moo ñuy moo ñuy téye parce que comme téyewuñu suñu carrière ba heure bi gëw ma ni loolu dinañu téye te te te te te ñun xaaruñu loolu xaaruñ lu yomb quoi bu naree yomb sax duñ ko bëgg donc te loolu la ñu fans yi di wax naan affaire bu yombee duñ ñëw donc bu naree yomb duñ ñëw donc dinañ ñëw te day day day day tàng. donc xaar benn spectacle bu inédit ak dina tàng tout ça lan la ñu mën a xaar ci sow ak surprise. waaw comme yaa ko wax damay bañ mu mel ne suñ pas arabe bi mu naan jeudi am ngeen devoir surpris <laughs> naa leen defal devoir surpris ba pare jox ñu date bi surprise moom surprise rek lay firi te incha allahu rabi loolu xam naa le jour ji incha allah gars yi dinañu dinañu kontaan quoi parce que ñun suñu ambition ak suñu philosophie à tout moment moom mooy bu ñu tegee benn concert bu ñaari nit ñëwee on va satisfaire ces deux personnes pour que bu subaa bu ñu demee ñu nettali ko yeneen trois personnes pour que bu déwénee bu ñu tegaatee topp si ñëw mais nous ne voulons pas faire un concert boo xamante ni ñaari nit lañ ko defal ñaari nit ñi bu ñu demee suñ nee neexul beneen yoon bu ñu tegaatee keneen du ñëw donc ñun loolu moom mooy suñu philosophie ci mbir mi te après vu que ni c'est un concert boo xamante ni rendez-vous du donner et du recevoir la ñu leen di jox ñoom ñu ñuy delloo wala ñoom ñu ñuy jox ñun ñu leen di delloo donc yaakaar naa ni ça sera un concert de ouf euh, waaw c'est un concert boo xamante ni on peut dire que ça sera une fête une fête et quand on une fête yow xam nga ni ñun def nañ ay featuring yu bari mm. et que ñëpp dinañ leen invité incha allah ñi ci am temps ñëw jouer ñi nga képp koo xamante ni rek def nañ ci featuring rek dinañ la invité ñi am temps dinañu ñëw. ñi nga xamante am nañ empêchement aussi dinañ leen nangul seen ngànt euh, bu soobee yàlla mais nekk na concert boo xamante ni ñëpp ñoo gis rek dinañu ñëw incha allah pour ñu partager li nga xamante ni moom mooy fête boobu. est que mën nañ xaar kon euh, Dip ak Ngaaka Blindé koo ci xalaat rek. koo xalaat rek ñun en tout cas on va on va inviter tout le monde. ñi nga xamante ni am nañ ngànt dinañ leen nangul seen ngànt ñi nga xamante ni amuñu ngànt dinañ partager ak ñoom conserve bi. mais de toute façon envoyé ngeen ay invitation. léppay dem incha allah. d'accord donc euh, <laughs> suñu euh, émission bi neex na lool donc euh, mi ngi jeex bii mooy suñu dernière question gis nañ Sénégal actuellement tey coow li bëri na politique ah Ousmane Sonko Barthélémy Dias Macky Sall troisième mandat. déjà groupe Akhlou Brick ban aperçu la am ci vie politique actuellement au Sénégal. waaw man su ma doon su ma sañoon da ngay wax politique rek en général parce que ñii politique dañoo bari jarul nga ñu. Euh, waaw waaw d'accord loolu tamit mën na nekk donc on est Sénégal boo xamante ni yàlla def na ni Sénégal la ñu war ko développer Sénégal la boo xamante ni kenn ku ci nekk sa ambition mooy nga séentu ko léegi nag kenn ku ci nekk dañ la jox benn rôle ne lii mooy sa liggéey. comme niñ jëlee jëmmi doomu aadama kenn ku ci nekk ñu jox ko dañoo jël bët ne ko yow kat yaa méngoo lan mooy sa rôle mu ne xool bakkan ñu ne ko lan mu ne man damay nooyi gémmiñ ñu laaj ko mu ne man damaa war a wax nopp ñu laaj ko mu ne man damay déglu tànk mu ne man damay dox ci lépp loo xamante ni mission wu cër bi la te da ko jëmm da koo soxla bi ñu laajee biir biir daane man de damaa bëgg rek tëdd lu ngeen am jox ma ma lekk toog xam nga lu gars yi def mm-hmm. dañoo bañ dañ ko ne yow duñ def loolu duñ ko nangu comment ça peut-il faire ñun ñuy dem ñii di xool ñii di déglu yow nga ne yow da ngay tëdd fi nga tëdd rek ñu lay jox pour nga lekk est-ce que comprendre nga moom gars yi bañ siisu loolu léegi bi ñu siisoo loolu toog heure xool jot ñu jékki-jékki nag ñu ne bët xoolal bët ne xee yoon instant bi moom mënu xool parce que dañoo bañoon a jox biir biir mu lekk si biir ñu neen bakkan nooyil bakkan ne man de instant bi mënu maa nooyi ñu ne nopp déglul nopp ne man aw man taluma sax déglu ndax instant bi moom wax dëgg yàlla man damaa xiif ñun daal di nangu ndogal daal di jël biir jox ko mu lekk bi biir lekkee ba suur ba mu suur dañoo ne bët xoolal bët ne ah man de tey maa dàq gis lépp luy waaye di gis bakkan kazalika keroog la commencé fonctionner di noyyi gémmiñ mën a wax normal euh, nopp di déglu tànk mën a jóg pour dox donc pour wax la ni la kenn ku ci nekk dafa am benn fonction boo xamante ni soo ko ratee rek mënul développer développement mënul am donc kenn ku ci nekk nga am fonction artiste bi nekk ci fonction fonction moom mooy lan contribuer dans le tourisme pour le développement du pays. Le politicien, son rôle, c'est de faire de la politique essayer de trouver des stratégie yoo xamante ni nii que ça soit économique que ça soit cult euh, côté agriculture que ça soit leneen ak leneen pour xool naka lay def ba point boobu noonu mën a développer te kenn ku ci nekk boo defee yéree sa place rek dangay ngay gis faay day am mooy waral yëngu-yëngu mooy waral et cetera et cetera ñu nekk dëkk boo xamante ni actuellement bëri na problème te tout problème lenn kese moom moo ko mën a defar mooy solution instant bi waruñu waruñu war a wërati problème parce que xam nañ ni dëkk bi am na problème léegi nag solution la ñuy dem pour jeexal li nga xamante ni moom mooy problème bi parce que on a dit que ni toute guerre commence sur une table et se termine toujours sur une table nan lañuy def ba waxtaanee dëkk bi pour dëkk bi mën a am jàmm nan la ñuy dox ba waxtaanee dëkk bi pour dëkk bi mën a gën a développer nan la ñuy def ba affaire bi mën a gën a avancer donc loolu moom mooy loolu moom mooy le questionnement mais man moo fi bàyyee sama liggéey dem ci liggéeyu jàmbur su boobaa dinaa chambouler li nga xamante ni moom mooy job bi donc dëkk bii nga xamante ni tey nit ñaa ngi ñaa ngi dee ñi ñu am na am na ñoo xamante ni ñu genre perte nañ ci seen bakkan comme je peux dire ñii ñu ngi ñàkk seen liggéey ñii taal nañ ci li nga xamante ni mooy seen magasin te pourtant ils étaient des innocents loolu mooy firi ni ay du yem ci bopp borom léegi nag nañu toog ñu trouver benn benn solution ñu waxtaanee ko léegi nag diine islam dafa wax ne xale du yedd mag mm-hmm. mag mooy yedd moroomu magam xale waxtaan ak moroomu xaleem mag ñi yërëm xale yi xale yi daal di jox mag yi cër cependant kenn ku ci nekk boo xamee sa rôle rek yaakaar naa ni dëkk bi dina nekk dëkk boo xamante ni dina développé parce que dëkk bi ñun ñëpp ñun ñoo ko moom ñun ñëpp aussi yaakaar naa ni kenn ku ci nekk tu es am nga li nga xamante mooy patriotisme si dëkk te dëkk mënul développer tant que yoroo quatre philosophies confucéennes yi nga xamante ni moom la la Chine emprunté muy la la rigueur le dynamisme ak le patriotisme ñeent ñeent eh, ñeenti ñii doomu bi tant que amoo ko dëkk bi mënul mënul mënul avancer boo seetloo nag à la base lépp rek yar moom mooy njëkk a jiitu ci biir gis nga bu mag yaruwul xale mënul yaru bu xale yaruwul it c'est parce que mag moo ko yarut donc affaire bi loolu kese la nañ toog ñu waxtaanee ko pour dëkk bi am jàmm pour dëkk bi mën a avancer parce que am nañ fi ay kilifa diine ak kilifa aada yoo xamante ni war nañu mën a waxtaanee dëkk bi ñun tamit ndaw yi ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk ñu waxtaan suñu biir pour xool dëkk bi gën a mën a avancer c'est ça loolu loolu laa amoon li nga xamante ni loolu laa ciy wax. merci beaucoup bon euh, réponse bi gudd na même si que voilà xaw na xaw na xaw na contourner question yi parce que voilà actuellement nii euh, surtout surtout li nga expliqué lépp nœud problème mooy euh, troisième candidature Macky moom la ñëpp di waxtaanee. waaw euh, seen seen appréciation ci loolu. Euh, bon déjà euh, c'est une question politique boo xamante ni déjà day bokk du bokk. mu nekk loo xamante ni dëkk bi dañu teg ay charte teg ay loi teg leneen ak leneen. ñu nag boo ñu laajoon léegi ci droit nañu. lii nii la demee lee la demee ñoom ñi ciy waxtaan sax dañ naan la waa bu bokkee ñu xeex kii ne la du bokk këll ne la du bokk ñun amuñ ci réponse politique ñun on n'a pas de réponse politique boo xamante ni dañ koy def si si question boobu li ñuy wax mooy li ñuy wax mooy li la wax nit ki bu ngeen demee ba yor réew choix wu réew peuple bi moo ko yore ñun peuple bi ñooy décider kan lañ fi bëgg questionnement wu Sénégal tool na foo xamante ni sax est nga ni Sénégal amul kandida Sénégal Uh-huh. non amagul candidat te élect à six mois des élections kenn xamul kuy bokk ku dul bokk kii dañ koy tëgg sërëxal nee nañ du bokk kii dañ koy def lii nee nañ du bokk imagine bu ñu demee ba toll foofu est-ce que bëgg nañ stabilité est-ce que bëgg nañ jàmm te loolu ñun ñooy voté quoi ñun ñoo yor suñu carte ñoo war a voté ñu dem ci dëkk boo xamante ni dem nañ à six mois des élections ñu ne gisaguñ xamaguñ kan mooy candidat bi xamaguñ les cinq wala les dix candidats te ñun loolu questionnement bi doo ma ko posé ñun peuple bi ñoo koy posé ne nañ ñu wan suñuy candidat ñu xam ko na cour suprême génn ñeneen génn na na ñeneen génn teg ko ñu xam ko loolu nag mooy questionnement tout tous les sénégalais benn ñaareel bi mooy que ñu gëm ni réew mi ñun ñoo ko bokk réew mi ñun ñëpp ci bokk réew mi ñun ñëpp koy defar gis nga li la dèjà wax rek ay du yem ci bopp borom boobu mooy lu luñ ci mënti di décider luñ ci mënti def suba bu ñu xëyee xam nga lu muy def partisan partisan ñuy xuloo di xeex di coow te amul njëriñ parce que après ay nit ñoo ciy gaañu suñu doom yi ñoo ciy gaañ ñun la ñun ñoo ciy ñàkk lépp. donc li may wax rek mooy que ni Sénégal benn bopp la kenn waru ko xar ñaar ñun loolu mooy suñu rôle ah ñun foofu rek la ñuy waxee parce que foofu lañ yëg suñu bopp foofu lañ gis suñu bopp amuñ benn choix politique bu ñuy defal kenn wala ñu koy defal kenn. donc loolu moo nekk suñu suñu suñu yëg-yëg suñu carte nag li ñuy wax mbañ quartier bi bu ñu duggee xam nañ ki ñu koy defal bu ñu duggee defal ko ko génn dem nekk suñu occupation c'est ça c'est simple. merci beaucoup donc euh, merci beaucoup ci réponse yi donc euh, question yi bëri na te répondre ngeen ko. Euh, comme il faut ñu ngi leen di remercier bu baax. di mm. leen euh, bàyyee euh, bon ñun suñu cadre mujj mooy li ñu ñor li nga xamante ni aussi moo ñor Sénégalais mooy jàmmi Sénégal mooy mooy suñu cadre bu mujj yàlla na yàlla def jàmm parce que ñun Sénégal ba mul sax gëm naa ni du suñu xew-xew du am déjà parce que ñun. bokk nañ ci ñi nga xamante ni bi jaamu amulee ci réew mi mooy ñu dugal benn feebar dugg ci dëkk bi fekkoon ñu am xew-xew bu mag bi loolu duggee dañoo jël suñu millions yi ñu defoon si suñu xew-xew yëpp daat koy annule te amul lenn luñ ci laaj comme ndàmpaay wala whatever te xew-xew boobu mujjul woon am tey jii dugalaat nañ suñuy millions ci suñu xew-xew bu jàmm amul est dina am donc loolu la ñuy woote jàmm boobu noonu ñu am peace am love dund ci harmonie comme ça ci loolu la ñuy bégewee même ñun sax mënuñu kontaan ba la ñuy bége ci loo xamante ni jàmm amul donc moom la moom mooy suñu wax donc yàlla na ko yàlla defal réew mi mën na ko defal ko ndaw réew mi mën na ko parce que ñun ñooy futur de demain parce que man suba mën naa am ambition boo xamante ni moo gën a raw ambition artistique que musicale mën naa xëy suba dama bëgg yor réew mi na ndaw bu ne gëm ni am nga contribution boo xam ne dangay danga bokk ci liy doxal réew bi ndaw loolu la war a def gëm ni man la donc loolu laay wax ndaw yëpp di wax Sénégal ñu am jaam ñu waajal le 3 juin donc yàlla comme Arala si bien di rek euh, di remercier waa Sénégal yéen ñi nga xamante ni tam tamit yéen boobu ba tey bàyyi woo leen te kër gi ñun tous nous savons que ni suñu kër la ndax yàgg nañ fi di def ay interview te heure bu ñu ñëwee aussi ngeen yaatal ñu di ci bëggee suñu sœur Mia Hatab euh, Mina Hatab bi nga xamante ni moom tamit euh, day sonn ci mbir mi à tout moment euh, Ibrahim ñu lay bëggee ak ki nga xamante ni mooy le caméraman caméraman bi ñu koy bëggee bu baax a baax di leen nuyu di leen wax ni kontaan nañ si yéen beneen yoon di wax ni Sénégal nag moom yàlla yàlla def fi jàmm jàmm joo xamante ni day sax damaa man eh, kenn ku ci nekk mën a euh, vaquer ci say occupation mën ci nekk ba keroog yàlla di la ci dimbale nga réussir si donc on remercie tout le monde fii la Akhlou Brick Paradise ñu ngi leen di jox rendez-vous aussi le 3 juin musée des civilisations noires su nekkee mën naa mën jàllale li nga xamante ni tamit mooy ku soxla ticket yi ni ngay def et tout euh, ma ngi leen di wax pour que ngeen woote ci li nga xamante ni mooy le 77 493 93 44 ou bien le 77 030 05 10 ou bien le 77 383 31 85 képp koo xamante ni soxla nga ticket gars nañ la fekk bu fi nga nekk aussi ñu jox la ko ñu xaax leen ne leen ku jeex rek da ngay ñàkk Cheikh Lou à Dakar deux concurrents 5 millions de Dakarois jaajëf merci beaucoup donc internaute euh, Sénégal loolu moo nekkoon suñu interview bi tey ak le groupe Akhlou Brick donc di leen jox euh, rendez-vous ci beneen euh, interview incha allah donc di leen ñaan juste ngeen partage vidéo bi te abonné wu ci son bi merci beaucoup.